فمحمدنا وهو سيدنا وأجمل من ترنور خلف بين فمحمدنا هو سيدنا هو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ya himmata shaykhi uhdari lana bi hadha almahdari walta'tafi bi nasratin ta'ti lana bi sahar wa baxdu assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñu ngi dellu siwaat di leen nuyu di ziyaara ziyaara bi yàlla suñu diggante ak képp kenn ci yéen di leen ndokkale ci weeru màgg wu tedd wii nga xam ne ñoo ngi ci fukki yi mujj yi yàlla ñu ko yàlla nangul ci darajaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni fukk yi nga xam ne bu ñu delluwaate ci jàngaleem sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne weer wi dafa séddliko ñetti parti muy ñetti fukk moo tax booy commencé woor wi sax danga ngay yéene fas naa yéene woor weer wi yépp ba mu jeex bu weer wi nekkee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent alhamdulillah nga jëfee sunna na ko sallallahu jàngale woon ne su ngeen gisee woor leen su ngeen gisee wari leen te mooy su ngeen gisee weer na ngeen woor waaye su ngeen gisee weer yi na ngeen wari waye bu ngeen àggee ca jamonoy wari waaye bu yàlla dogalee ngeen am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent niki alxames bii di ñëw ngeen séntu weer gisu leen weer na ngeen matal fa tabaarakallaahu loolu nekk njàngaleem sallallahu alayhi wa moo xam ne mu ama am am solo la moom moomu nag moo séddale na weer wi ñetti fukki fan la mooy fukki fan yu njëkk yi yërmande la yi ci digg bi njëggal la yii ñu nekk tey muy jeexetal gi goreel ca sawara la ñu ngi ñaan sama boroom yàlla subhanahu wa ta'ala yal nañu yàlla wërsëgal ñu mën a màng yépp ci mbaaxam ak ci yërmandeem mbokk yi xam naa ne seen darsu xilaasu zahab fi zirati xayril arab bi ñu ànd ak yéen sak altine maa ngi doon wax ne dañu koy leb ba koor gi jeex diiru koor gi saa bu ñu ko sunu jot maye ñu ñëw di ànd ak yéen di waxtaane ngëneelu weeru koor ak ya ca aju waaye xam ngeen ne ñi ngi ci guddi goo xam ne ci lañ war a tàbbi tey ci ëltina muy guddi gu màgg goo xam ne ñun sunu sëriñ di Mawlana Cheikhul Xaaji Malik radiallahu taala anhu moom dafa tànn di dàkk ak di màggal guddik laylatul qadar ci ñaar fukkeelu guddi ak juróom-ñaar loola nag damay wax ne du loo xam ne daf ko jël rek tànn ko noonu waaye ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ko ci la ko jëlee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaay aichat radiallahu anha daf ñu nettalil ne xam ngeen ko te ñépp xam nañ loolu ne yonent bi alayhi salaam ku nangu a jaamu borom subhaanahu wa taala la koo xam ne wax nañ na daan na taxaw di julli ba ay tànkam di néewi ngir taxawaay bu yàgg bi ak rokon yi kon kooku mosul foye jaamu yàlla ba ngeen xam ne dégg ngeen ko boo ko yaa Aïcha laajee na ko kanaa du yow la sama borom yàlla wax ne jéggal na la say bakkaar yu njëkk ak yu mujj yépp kon lu fi jar ngay sonnati mu ne ko Aïcha ndax waruma nekk jàmm boo xam ne damay sant sama borom ci ngëneel googu mu ma defal loolu nag jàngat bu rëy rëy rëy rëy la mbokk yi wallahi ñuy gis benn nettali kuy nettali mu ne dafa am benn jaamob yàlla boo xam li may wax téere yi ñoo ko bind dund na juróomi téeméeri at masul mooy yàlla ci liñ xam ci mooy mu dajeeg sama borom yàlla mu faatu yàlla wax malaaka mi ne sama jàmbee de ku góorgóorlu la ca la ma ko santoon te bàyyi mboolem lu ma tere dund na juróomi téeméeri at waaye mosuma mooy na ngeen ko jël dugal ko aljanna ci sama yërmande ndeysaan biñ ñëwee yeggee ko nitu yàlla ba mu daal dina ndax yërmande lay sama borom yàlla wax mu ne waaw mu dem leen ngeen wax ko na ko noqool li ma jëf dund naa juróomi téeméer at te mosuma koo moy malaaka yi dellu siwaat wax ko sunu borom yàlla sunu borom delloowaat malaaka yi kém nam leen ko waxoon ni dellu siwaat ñëwaat ci waaji waxaat loola waaja delloowaat leen lam leen njëkkoon a wax ba muy ñetti yoon sama borom yàlla ne wowal leen ma sama jàmm boobu mu ñëw ñu woo sama borom yàlla na ko kan moo la mayoon ay gët yooy xoolee mu ne ko kanaa yow kan moo la mayoon làmmiñ woo doon waxee sa soxla ba man maa tudd man maa sàbbaal mu ne ko yow ku la mayoon nopp yooyu déggee mu ko yow waa noy yi nag yi tax ngay dund mu ne ko yow mu ne ko léegi dama bëggoon rek ci masalan ñu xool facture bët yi nga doon xoolee allahu akbar waa ji mu jaamu borooma subhanahu wa taala ci juróomi téeméeri at bu ko yàlla doon facturé muntu fay sax lam doon xool ci ay gët kese moo tax yàlla mbokk yi amul kenn li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne amul kenn ku mën a jëf lu tax nga dem aljanna ñi laaj ko mu ne ba ci moom ku dem aljanna yërmande yàlla la fa dugal yërmande yàlla nag mbokk yi la koy maye mooy ragal yàlla te yàlla ñu ko wax ci alquran aha wa rahmati wasiat kulla shay fa sa aktubuha nag lilladina yattaquun yàlla nee sama yërmande dafa yaatu ba ndar képp àddina lépp nag laa wax kulla lépp kenn génnu ci sama yërmande kenn génnu ci kenn génnu ci waaye nag ëllëg yawmal xiyaama mufassiroon yi noonu nañ firi aaya bi ñu ne fa sa aktubuha lillazina yattaquuna mooy ñuy leeralal arrahim mooy maqaama rahman ak maqaama rahim arrahman ci la yàlla jëfandikoo wa rahmatullahi wa rahmati wasiat kulla shay yàlla ci raxmaanam lay xéewale ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwul kenn waaye ci raximam nag moom ña ko ragaloon rek la fay xéewalal mooy barzaq ëllëg yawmal qiyaam ku ragalu loon yàlla yàlla du la lu leen nañ ci yàlla musal fa tabaarakallaahu kon jàmm bi war na yëg daa iman ne moom amul lu mu mën a fayee boroomam subhaanahu wa taala ci ay ngëneel yi nga xam ne yàlla defal na ko ko ndeysaan weeru koor wii nag bokk ci weer yi nga xam ne weeru ngëneel kese la ma ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu yàlla royloo yónni ko ci mbooleem aalam yàlla ne ko jéggal naa la say bakkaar yu njëkk yu mujj mu mën a jaamu boroomam subhaanahu wa taala ba bu weeru jotee fukki fan yu mujj yi dafay yokk jaamu yàllam yokkun woo xam ne ñi ko xam ñépp xam nañ ne dafay gën a taral jaamu yàllam waaw dafa gën a sawar dafa daq jox àq li muy def ci jaamu gi mu jaral ko bàyyi kër ga dem féete ca jàkki ja di def li ñu tuddee i'tikaaf waaw wan njaboot ga soxna ya lal lépp mu bàyyi ko ci kër ga ñëw dëkk ci jàkk ji di wéttali ko boroomam subhanahu ba ñu fekk ko fa ne ko weer wi feeñ na mu jox ndigal sidna Bilal ne ko noddal mu nodd ñëpp daje ñi xibaar leen ne weer wi feeñ na ñu dem ci julleekaay ba julli mu waxak ak julli ñu door a dellu këram parce loolu mu ko daan amale ci fukki fan yu mujj yi ñu ne kon amaana da doon dàkk mu itam kon fukki fan yu mujj yi guddik laylatul xadar ngir bañ mu romb ko te waaye loolu li ko gën a leeral mooy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain am na ci ñoo xam ne gént nañu guddi ñu ne leen guddik laylatul xadar ñaar fukki fan ak juróom ñaar la ñu ñëw nettalil ko sallallahu alayhi wa mu ne leen jeex leen ko fa ndàkk leen ko ci fukki fan yu mujj yooyu ngeen di wax waaye dàkk leen ko ci guddi yu tool yi ca xaddisu ibnu abbas radiallahu anhuma ba kon cheikhul xaaji malik radiallahu anhu ak ñi mu am bu ñu jëlee laylatul qadar di ko dàkk ci guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dañoo am cëslaay lu wér lool loo xam ne ci téere yi lañ ko jëlee te weer wi li ko tax foor mbokk yi mooy guddik laylatul qadar guddik laylatul qadar googu la ko tax a foor mooy alquran mi ci wàcc moo tax foofu dafa amaat beneen sew-sew mbokk yi mooy nañu delluwaat mbokk yi nafaraat téeréb yàlla bi te mooy alquran moo tax guddig laylatul xadar amul lu gën nit ki wàccee ci kaameel nit ki jàng ci téeréb yàlla bi nit ki di ci nafar nit ki def lépp lu mën ci xeetu jaamu yàlla mu tiim kaameel bi nafar ba kémtulaay kàttanam fa mu toll moo xam mën na wàcce kaamel bi yëpp moo xam da ci mën a jàng benn hisib moo xam mën na fa jàng fukki hisib wala juróomi hisib waaye na jàngaat alquran waaye ànd ak teewluwaat nag waxu yàlla bàyyiwaat xel message bi ndax alquran message la bu sama borom yàlla jox sallallahu alayhi wa sallam ko nag kuy mbindefam ndax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin alamin jooju ku yàlla dugg nga ca biir waaw ma guddig laylatul qadar googu nag mbokk yi li ko tax foor mooy alquran moo ca wàcc kon mbokk yi nañ leen gendeekuwaat alquran bàyyiwaat ko xel jàng ko te di ko jàngal sunu njaboot moom nag laa yamaduhu illa almutaharuun waaw yàlla nee na bu ngeen laabut bu leen ko laal xam ngeen lu tax téere bi dafa laab waxu yàlla la du waxu sallallahu alayhi wasallam de waaye waxu sama borom yàlla la bu mu wàccee ci yonent bi alayhi salaatu ci guddik laylatul qadar kon guddi googu bu ñëwee bokk na ca la nga ko war a màggale mooy jàng téereb yàlla bi sa kémtulaayi kàttan boo ko mënul sax na nga ko jàngulu waaw na nga ko jàngulu waaw woo ay ndaw yu mën alquran nga jox leen ñi lekk ba suur ñu jàngal la téereb yàlla bi nga yéene ko jaamu yàlla amul lu ko ëpp waaw mbokk yi guddi googu nag xam naa waxtaan wi moom tabaarakallaahu li ñuy def nii dañ ko doon ubbe waaye fa la ñuy jaare tëj suñu waxtaan xam naa waaye ñi daaneel suñu kàddu rek ci wax leen ne guddi gii di guddik laylatul xadar ñu war ko màggal tey jii ci ëltina nekk guddik ñaar fukkeelu fan ak juróom ñaar mbokk yi lépp lu ci waaye man ci góorgóorlu na nga ko def waaye ñett ngi nii ñoo xam ne maa ngi leen di jox conseiller bu rëy balaa maa sori ci wax ji moo yow mi nga xam ne danga tongoo woon ak sa mbokkam julit ngel la góorgóorlul ba daw dem saaf wante ak moom jéggul wante ak moom te dëgg ci sa xol donte la moo la tooñoon ba toññar bi la sax yow demal nga jéggulu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam de noonu na ñaar bu ñu tongoo lu ëpp ñetti fan ku njëkk a dee sa morom safara la jëm loolu xam nga musiba la waaw dafa waxit ne guddig laylatul qadar li muy baax baax baax ak li muy bari bari bëri yiw ñaari jaami yàlla ñaari jullit ñi ci tonguwantoo ñaari ñooñu yàlla du leen xool ci guddi gi allahu akbar kon góorgóorlu boobu la kenn xeñ mbokk mi màggaay yo guddig laylatul qadar yow mi am say wayjur moo xam ñi ngi dund moo xam dañoo faatu waaye yëg nga ne wayjur dina faatu dem barzaq nga continuer di ko jokk di rafetal sa ànd ak moom yonent bi jàngal nañu ko kon képp koo xam ne da ngaa ñaawal sa diggante ak say ñaari wayjur guddeeg laylatul qadar sama borom yàlla du la xool mbokk loolu dara jaru ko waaye yow mi nga xam ne da nga am sa kàccoor ba mu jaral la di not ay néew ju doole di lekk seen alal rawatina ñi ñuy tuddee ne ñoom ay yëttiim lañu mooy ay jërim lañu guddi googu lu mu bari bari bari yiw yow yiw yow miy def loolu doo ca bokk kon loolu nañu ko moytu su ko defee nag. guddi googu ya yaa aïchata radiallahu anha laajoon na sallallahu alayhi wa na ko bu ma dajee ak moom ana lan laa cay def ma ne kon ñaan googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon yaa aïcha na ko nit ñi baril ci guddi gi waaye nañ ci bëril ay nawaafil waaye nañ ci bëril jàng téerab yàlla bi ta mooy alquran allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu ñu bare bare bari ci ñun mokkal nañu ko moom la yonent bi alayhi salaatu dénkoon sunu yaa aïchata radiallahu anha mbokk yi guddig laylatul qadr googu nag xam naa ne ñun dañoo xaw a bëri tafsir rek ngir bëgg nit ñi di dégg waaye doyoon na sëkk rek mbokk yi ñu jàng alquran na ko alquran waxee te mooy inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri min alfi shahr tanazzalu almalaikatu wa fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta la il fajri xanaa kon su ko defee rek dañuy jéem a firi saar wi incha allah suñ kémtu kat suñ kémtu laay kattanal dégg-dégg daal di koy tëjee waxtaan wi incha allahu taala kon mbokk yi sama borom yàlla subhaanahu wa taala mooy dénkante ak ñun lan lay dénkante ak ñun mooy guddi gu màgg gi nga xam ne nee naa la weeru koor weeru màgga màgga màgg la bëri ngëneen lool gën ci mbooleem weer wi waaye li tax mu gën ci mboolem weer yi mooy dafa am guddi gu ci nekk goo xam ne moo gën ci guddi yi waaye guddi googu it la ko tax a gën mooy alquran allahu akbar ndax ci la alquran wàcc kon mbokk yi ma ne kon nit ki war naa gën a bàyyiwaat xel téereb yàlla bii di alquran loolu na sama borom yàlla moo ñu ko jàngal ci alquran inna naka ñun seen borom yàlla eskay anzalnaahu ñoo wàccee alquran aha kañ fii laylatil qadari ci guddik laylatul qadar lañ ko wàccee moom alquran mu mel ni ñi muy waxal dañoo xamut ñu laaj wama adraka waaye yow suñu borom yow mi ñuy wax guddi gi ak téere bii nga ñuy wax mooy lan ana lan mooy laylatul qadar wama adraka ma ana lan mooy laylatul qadar yàlla répondre ne laylatul qadar guddi googu ma leen di wax ñu ne ah mu ne xayrum min alfi shahr moo gën moo gën junney weer waaw toujours su ma koy su ma koy firi dinaa leen wax ne ba tey ñun sama borom yàlla waxuñ ñu guddig laylatul qadar na mu toll ndax dafa ñoo wax ni moo gën la wax moo gën junney weer kon kenn xamul dayo guddig laylatul qadar mbokk yi inna naka ñun seen borom yàlla anzalnaahu ñoo wàcce alquran fii laylatil qadri ci guddik laylatul qadar wa ma adraka ana lan mooy ma ana lan maa mooy la nga xam ne wa ma adraka wa ma adraka kay wa ma adraka maa ana lan mooy laylatul qadri yow sunu borom mu ne laylatul daal guddi googu ma leen di wax ñu ne waaw mu ne xayrum min alfi shahr moo gën junne weer mille mois ñu ne bi ñu ko xoolee moo nekk quatre vingt trois ans yu teg trois mois guddi googu lan moo cay xewee sama borom mu ne tanazalu dana wàcc al malaikatu mboole malaaka yi ñëpp dañuy wàcc ci asamaanu juróom-ñaar ji ngeen di gis malaaka yi dañ fi wàcc di bégee guddi googu dégg la ak seen patron te mooy sidna jibril alayhi salaam di waaw moom it day wàcc bëgg wane rek foraayu guddi gi moo tax sama borom yàlla ne tënazalul malaikatu yamul foofu mu tegaat ci ne wa ruuxu ndax sidna jibril malaaka waaye mooy seefu malaaka yi nag waaw waaw wa ruuxu di fiiha guddi googu day wàcc bi izni rabbihim nag ci ndigalu seen borom yàlla subhaanahu wa taala waawow min kulli amrin nag loola ñuy def ñu ngi koy lañ fay def yépp ñu ngi koy defee ci ndigalu sama borom yàlla dégg nga ko salaamun jàmm la ñuy def la ñuy wàccee salaamun tanazalul malaikatu wa ruuhu fiha bi isni rabbim min kulli amrin salaam dañuy wàccee xéewal dañuy wàccee jàmm dañuy wàccal ñaanal xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu ñu mucc ci mberum merum yàlla dañ leen di ñaanal ngir ñu dajeeg ngir màndal sama borom yàlla dañ leen di ñaanal ngir ñu am texe àddina ak texe àllaaxira loolu nag ñi ngi koy def xatta matla'il fajri ba fajar xar bu fajar xaree nag ñu door a delluwaat ci seen mission yi ci ndigalu yàlla waaye guddi gi laylatul xadar moom malaaka yi amatuñ benn mission bu dul ñëw dundal guddi gi kon mbokk yi guddi gi laylatul xadar kenn xamul lan la kon guddi tey gi mbokk mi bu la ci dara raw góorgóorlul ba loo ci man ci saraxe na nga ko def loo ci man ci jokk sa bokk na nga ko def loo ci man ci jàng alquran na nga ko def loo ci man ci istixfar na nga ko def loo ci man ci salaatu ala nabi na nga ko def waaye te fàttaliwaatuma la la borom xam-xam ba waxoon ba ñu ko laajee ana naka la ñuy dundalee guddi dafa ne dundal guddi daal dëgg-dëgg boo ko bëggee dégg mooy na nga góorgóorlu ba julli gee ca mbooloo ma gulli julli gee daal buñ koy noddu nala la nga taxaw ñii li nga taxaw imam bi kàbbar nga kàbbar roy ci ginnaaw imaam ak moom gee bu neexee soo pare dellul sa kër def say naafile waaw ci guddi gi waaw boo sonnee nag tëddal nalaw waaye fexeel balaa fajar de xar na nga yeewu delluwaat ca jàkk ji julliwaat fa fajar mu ne ñaar yi képp ku ko def ci guddig laylatul qadr yow guddi googu dundal nga ko màggal nga ko kon mbokk yi nañ leen gën a góorgóorluwaat bu baax loolu it dañ ci déggee kon ngëneelal julli ci mbooloo julli ci mbooloo mbokk yi lu ama am am solo la waaye ki mu doon farata ci moom rek la am solo na ak li muy am am solo ñu bàyyi ci xel mbokk yi kon guddi gaa nañu yàlla may dégg ak topp lépp lu ci nekk ci ay ngëneel yal nañu yàlla wërsëgal yaa rabbi ñu màng ko yàlla defaral ñu sunu xol yàlla saafaraal ñu jàngoroy xol yi def ñu bëggante li wut ilaahi taala yal na yàlla xiir ñu ci def lu baax ak wax lu baax yàlla musal ñu ci lépp loo xam ne dafay lore bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam in uridu ila al islaah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh